dana ñëwaat ci biographie yi ngeen xam les candidats monsieur Baralo DG ONFP donc di wax ci turu allié yi coalition Pastef voilà monsieur directeur directeur. salaamaaleykum di leen ziar di leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam jërëjëf Mao di nuyu honorable suñu Cheikh Thioro. di nuyu suñ mbokk futur député yi toog fii yëpp di am mbégte bu yaatoo yaatu di toog fii euh, démb arena dégg na ay jeunes yu ne président Ousmane Sonko dañ ko mere quoi ndax lim yóbbu événement bi arena ak ñi bëggoon a ñëw yëpp defe naa tamit yéen tamit dañ leen mere yéen ñëpp ndax événement bi waroon nañ kaa mën a yóbbu stade Mbàkke wala feneen def ko meeting pré campagne defe naa événement bii mënoon nañ kaa yóbbu Mbàkke def ko meeting pré campagne waaye nag yoon demul ci benn te def naa ne li nekk suñ kanam fan yi ñu jëm ñu war kaa doxal moo ëpp département Mbàkke ku ko xam ci réew mi xam ne departement bu am solo la ci wàllu politique ku ne élection wax grenier électoral te ku ne grenier électoral wax département Mbàkke may profité nag di wax waa Mbàkke ne leen élection yii ñu jëm le président Ousmane Sonko tànnal na leen ay ndaw yoo xam ne bu ñu demee teewal leen assemblée war nañoo mën a bég ci ñoom tànnal leen na leen ay ndaw yoo xam ne ku mel ne suñu Cheikh Thioro bi mu nekkee assemblée ñëpp gis nañ taxawaayam ci défendre Mbacké ci défendre monde rural waaye tamit ci défendre Touba ak doomi daara te ñuñ tànn ñëpp ku leen xool xam ne ay nitu conviction lañ ay nit ñu am dignité lañ waaye ay nit lañ yoo xam ne bi suñ ñëw leen yóbbee assemblée lii jafe waa Mbacké lii taxawaay bi ñu soxla ci waa Mbàkke donte bokk nañ Pastef donte bokk nañ ak président Kan seen kàddu mooy teewal askan wi te loolu def naa lu am solo la man nag di ñema ma wax ci turu allier yi waaye honorable damay wax ci turu allié yi waaye tamit damay wax ci turu waa Pastef ndax ñun ñëpp Pastef lañ bokk jamono ji li tax ñu bokk Pastef mooy lan ñu ne le président Ousmane Sonko dañoo bokk conviction conviction dañoo bokk gëm-gëm dañoo bokk xalaat ci fi Sénégal war a dem ak ni ñu war a yore Sénégal liñ naan jub jubal ak jubbante dañ koo bokk gëmanoo ko ak ñoom moo tax ma jàpp ne incha allah rabbi niñ mobilisé woon ci élection présidentielle yi nu ko raw dinañ ko def tey jii damaa jàpp ne lépp lu ñu defoon benn dañ ko war a def ñaar élection présidentielle am nañ ci lu toll ne 173000 voix waaye boo xoolee li suñ carte électorale mën nañoo wax ne lu toll noonu desaat na ci ci électeurs yi ñu voté donc tey jii suñu defi mooy lan li ñu amoon ci 173 000 voix lum tuut tuut tey jii ñu dem 200 ba 250 000 voix ndax kat suñ juróomi député ci département bi loolu du combat de juróomi juróomi député département bi du combat xam ngeen combat bi lan la xam ngeen combat bi lan la mooy fii ci Touba Mbacké contribution biñ nar a indi ci liste nationale bi ba nga xam ne ay député ki député député ci liste nationale bi dinañ xam ne li leen fal Touba Mbacke ak Mbacke gii la jóge loolu mooy suñ combat ñu am ci yaakaar di wax nag ne lépp luy acteur politique bokk ci coalition bi ni ko waa Pastef defee lépp luñ am lépp luñ man lépp luñ xam danañ ko boole dajale indi ko ànd ko ak suñ Cheikh Thioro ak investi yëpp bu ko defee ndam li rëy rëy rëy di waxaat nag pour tëj ni sama mbégte dafa yaatu ndax bu ma gisee ku mel ne Mansour Faye ñu investir ko gis lim daj ci parti bi gis ni mu sonne ci élection bi loolu mooy wane ne Pastef parti mérite la loolu mooy wane ne Pastef ak président Ousmane Sonko xam nañ militant lan mooy taxawaayam te lépp luy gëdd ak cër ñu ngi koy delloo ci militant yi ñun nag suñu xel dal na ndax lépp lu ñu amoon ci taxawaay rek dinañ ko dool dinañ ko duble ba nga xam ne lii suñu candidat ci département bi ak ci liste nationale le 17 ñoom ñëpp ñu falu te bu ñu demee assemblée seen taxawaay yëkkati département bi seen taxawaay yëkkati Touba di leen sant di leen gërëm di leen baax ngeen waaj ndax campagne bi commencé taxaw du am te ndam rek lañ lañ lañ mën a am di leen sant di leen gërëm waaw. merci directeur allié de taille bu Pastef nekkoon directeur campagne départementale bu la coalition Diomaye Président donc noonu lañuy ñuy encore ñëpp allier bu fi nekk rek Cheikh Bara wax na ci seen tur gis nañ fi doyen Séga Sy bu Mimi gis fi aussi monsieur Diagne bu Cheikh Diagne Dieye ak ñeneen ñi xam si mu ñu leen lim baa ngi foofu. comme ni ko gisee rek salle bi dafa xat xëy na programme woon nañ bépp candidat wax aussi les alliés ñëpp wax mais loolu xaju fi parce que fu toll nii ñoo ngi sonn c'est dur instant bi ñu leen ciy tuubal yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu. gis nañ fi les lions sëñ Assane Cheikh Thioro mi ngi lay nuyu ak Ahmadou Lo gis nañ fi aussi ñoom ñëpp ñoo ngi taxaw dari jaata bu UJTL PDS nekkaat aussi ñëw ci Pastef noonu nooñu ñu demee rek dana ñëw ci biographie ña nga xam si nag. danañ jël parole comme nu ko ñaa defee woon mais da koo defoon brièvement ñëpp ñu jël parole danañ jox soxna Awa Seck mu wax donc boo waxee waxaaleel na bépp candidat ba nga xam si investir na la ci liste bi noonu la ñu joxee Ahmadou Lo mu wax le coordonnateur départemental ka nga xam si par exemple c'est un pionnier kon ni ko waxee rek bokk ci militant de première heure yi bu ñu waxee biram ni ñu ko waxee woon donc defoon na Pastef 2017 néewoon na fi doo lool lool lool biram di liste suppléant dugg fi indi fi Sonko def ci lu mu war a def lu rëy ñoo lay jaajëfal biram jaxeer Diouf doon liste suppléant ci liste nationale bi voilà soxna Awa donc ñu déglu ko mu wax waxaale jigéen ñëpp doon une battante fallait que ñu présenté waat ko fallait que ñu waxat ko c'est ferte fierté nationale di du département Kang Xam si c'est une panthère mën na na par exemple que il a tout fait pour mériter ñu investir ko ci liste ñu investir ko donc kon bravo soxna Awa